الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokki jullit yi bokk daje fii ci pàkk bu tedd bi pàkk bu màgg bi pàkk bi yàgg di dundee alxuraanul karim waaye di dundal alxuraanul karim dippi ko borom pàkk bi keree di al ma jaxate kala ci atam 1893 ba legi dañul di al-Quran, ci ruham waye di dundal qur'an ci tasarik ko kaddu yu nuyoo ñu ngi koy yëkëti ci ndigalu al-Khalifa al ma jaxate kala allazi ala llahi tawakkala di sëriñ Ousmane Mahamdul Habib Jaxate ak mboolem ay rakkam yi mu bokkal sëtu ci alxaadima jaxate kala mu yóbbaale seen kaddu te bu ñu ko waxee tudd sëriñ Modou Xaali jaxate moom sëriñ Mor Saasum jaxate tudd sëriñ Moussa jaxate moom sëriñ Mor Saasum Jaxate tudd sëriñ baabakar Jaxate moom sëriñ Ousmane Jaxate ñooñu ñooy rakkam yi nga xam ne ñu ngi bokk ak moom nekk ci pàkk bii di seti alxaadima Jaxate kala waaye ak mboolem nag ay doomam yëpp ak ay sëtam yëpp waaye ak mbooleem nag dëkkandoo yi ni ñu ko daan baaxoo di waxe di muqaddam yi nga xamne ñoo nekkon muqaddami al khadim jaqate kala dekkale ak mom ci pak bu tedd bi di ko Al Hayy abdullah sall di khalifa mamadou sall teewon ci suba teway bu mat sëkk bu matale tabarakallahu waaye bokko na ci muqaddimam muqaddamam yoyu suñu mangalay geey di way juru pap Al alxaaji njaxat geey mi nga xamne moy wayjuru euh juru président alhaaji Demba Fall Gueye mi ak mbollem jabot gi mu andal yep waye bu ñu tuddé muqaddami da nañ tudd suñu mam Samba Ndiémé juuf nga xamne mom ci tut tankam la andé khadima jaxate kala suñ doon joxe misal dañuy wax ne mam Samba Ndiémé juuf moy Seydina Ali ci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. waye dinañ tuddu suñu mam Matar khari job tuddu suñu mam sa ñam tefal tuddu suñu mam mam biratal tuddu suñu mam njàmme sisé xëy ay sëtam am ki dëkk bi waye di khalifa am ñanga dëkke kër makala waye tuddu suñu mam abdullahi Diop ak waa suñu mam mahanta Diop ñoñu ñoy ñi nga xam ño tannon dekkale ak al khadim jaxate kala nga xamne suñu mam mor xujja mangalay geey li ko tax a dëkki Cees mooy alxaadima jaxate ka làqu jamono te kilifa bu mosaan a làqu jamono njaboot ga ñëpp dañuy jaaxle fenn fu ne waay daw bay fa boppam moom mu ne barab bu xaadima jaxate ka la nekkatut wóoratut a dunde looloo tax dem ba Gueye ñoom ñiy dëkk Cees waaye kon fii lay dëkke waaye ñu dem ba jëmmi jamono ngi dikk dekkalaat foo daggaat teeree tabaxaat ko ñibbisiwaat du ma del si ci di sant dëkk bi Souleymane di directeur école bi mën naa ne di imaamu ratib ci jàkka ji ndax nan doon nab nabee ca ginnaaw way juram du suñu kilifa du suñu cëslaay du suñu wéeruwaay alhaaji Ousmane rahmatullahi alayhi wa radiallahu anhu nga xam ne kenn ki njabootam moo ko defal marché bële sayxun taqiyun naqiyun aarifun mutawaadihun ka anna ilaha nnaasi rabbaahu wallahi sikk nekku ci loolu moo doon dundam lee ki ko bind benn benn benn benn benn ndar newu ci lépp xaqan lépp tabaarakallaahu Suleymaan jàng tàmbalee jàng daar ci daara ji waye wër ci barab yu bari ci barab bi dëkku leer Medina bay, fas Touré fenen ak fenen ak fenen waye ba mu ñibisé la way juróom doon wax ci man ci mbaxam ne man def moko ne Idrissa Jaxate motax ma mëna genn waye waaye bi ñibisé man la cheikh bi mu ñibisé la cheikh Ki daara ji cheikh ci jakka ji cheikh ci yu conférence cheikh ci fatwa masalé kon bay ki sa yowu tank mu ànd ko ay rakkam nag tabarakallah docteur mohammed di secrétaire lu gi al alxaaji njaxat di jewri ni dara gi loolu la sëriñ Ousmane waxoon jewri ni dara gi motor baxawul feñ motax lu melni bu ñewé doo gis njaxat parce que bu ñewé fi rek dana am xoy day sout day day jox di am rek lepp normal kon tubaarakallaahu la kilifa ga don wax ne imaam Idrissa bu leen gërëmee gërëm naa bu xarabee xarab naa waaye am ngeen gërëm yépp li ma waxoon keroog sëriñ Haadi Touré ca fa ca ca Jaksaaw ne ko nit day dem tumuranke ku mu bokkal benn baay ak benn ndey di waxtaan ak moom ma ne ko waaye Souleymane mooy kii ma bokkal ndey ak baay du du xuuse waaye bay ci say tànk bay ci say tànk kon cant mënul weesu sant gërëm mënul weesu gërëm li am lépp damay toog ñëw toog lépp dox lépp fonctionné ñu pare ñu nekk seen digal lañ ko defee te defuma ci dara financé wu ma bindu ma maasu ma dikku ma waaye danoo jëfandikoo ndigalu seen kilifa suñu kilifa seen wasila suñu wasila seen wéeruwaay suñu wéeruwaay bu alxaaji Ousmane Jaxate rahmatullahi alayhi wa radiallahu anhu waye di ñëw ci di wax ci kaddu tamit sama mag sama kilifa nga xamne tay buñ ne woon xalifa sëriñ Abdourahmane Jaxate radiyallahu taala anhu dani wo khalifa sati xaadima jaxate kala damay jël ci jaada jital serigne Moussa Jaxate mais ànd ak mom di xalifa sëriñ Abdourahmane Jaxate di borom xam-xam diko bax di mag yoo xam ne du la sëkkatal du la cakkaftal kon sëriñ bi ngay jox sa wàccaay baax a baax a baax di la nuyu bu baax a baax a baax di la ñaan yàlla baax a baax a baax yàlla na yàlla tëbb la tawfiix yal na yàlla dolli la leer dolli la wér dolli la jàmm defal la tawfiix yi ka xayraat ak barakaat barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa noonu la ñuy duggee sëriñ Moustapha bu sëriñ Basiiru Ñang Tayba di sëtu Cheikh xaaj Hadji Malick Sy toog fi ci suba wax fi waxtaanu am solo waaye soññee fi soññe bu am solo ci boroom nopp yu naqari day defe ne mbàkku la fekk ab soññe la dafa toog fii ne nit du kañaan nit du goreedi Xaadima Jaxate Kala moo magoon moo njëkkoon ñi mu jamonoonteel ci daara ji ba pare jariñ leen ci xam-xamam ñu ne tekk mu ne Cheikh Seydil Hadji Malick si da doon jariñu ci xam-xamu Xaadima Jaxate Kala suñu maam Seyxul Xadim da doon jariñu ci xam-xamu Xaadima Jaxate Kala ki bokk ci Xaadima Jaxate Kala dal di wogganti garaam bubam loolu karawaas la may wax ne est-ce que yow man ngaa jariñ est-ce que yow man ngaa jariñ kooku sa maam doon jariñ seen maam ndax yow bu ngeen tasee mën nga ko jariñ ci xam-xam te yàlla ma waxone ne aduna sama loxo la nek ma diko orienter orienté nexe ma diko orienter numa nexe orienté ay jamono mam khadima Jaxate kalam magon na len ci at ndax biñi ñuy aduna ñom ndax mam shaykhul qadim mo mag mam alhaji malik Si mam shaykhul qadim mo mag mam Seydil haji malik Si waye ñom ñep biñi ñuy jamono khadima Jaxate kalam mi ngi téye daaray bayam di jàngale fan yëpp waaye jamono day tourné sëriñ Moustapha waxoon ci waxam ne ci lislaam laay wax ndax tariqa dafa xat xaadima jaxata kala ne man dundewuma tariqa sama tariqa ci kurus gi la ca der ba waaye man mbokk gi ak lislaam lay dundal bis bu set ma joxe ci exemple Seydil Xaaji Malick la bokkal tariqatu tijaaniya waaye boo doon woo seti xaadima jaxata kala boo gisee mbàkke ngay gis waaye ko sant si di sëtu alaaj di sëtu alaaji Maalik di sëtu Xaadima Jaxate Kala direct danga nga jàdd jàdd jàddaat man nga ko am de boo dee Mouhamadou Haadi Jaxate mi doon jàng soxna Amina Serigne Haadi Touré Serigne Moustapha Touré sëriñ Haadi Touré Serigne Moustapha Touré soxna Ayda alaaji malik kon Xaadima Jaxate Kala mooy Sénégal ba pare doon rab bu Sénégal ci lislaam ci diine موتاخيت من حمل سالعا فلنفسه ومن أزاء فعليها وخاتنا من عمل زالها من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة دندقنا تخ منتويشو من نفسها بلغة دارة جيجن دي دوخ دي جيجن أماس أمنا كو قاني بمو دمي دارة جيجن دي ألير خادي ما جاحتك على بلغة دارة جيجن أماس نمبر بي نيكو فيون نجانا مسيد مي أمو فيون مقل جي أمو فيون تبارك الله دي جيجن دي أماس بي أمو فيون kon wala nu xayyannahu xayaatan tayiba kon sëriñ Moustapha Al Bachir waxam jooju soññe la ci njaboot gi te bu ngeen déggee alxuraan la insisté jàng leen alxuraan daat ne laxas jàngi dina wees waaye jàng du wees laxas jàng yi dina wees waaye jàng du wees amal soixante-dix ans nga dëkk ak Souleymane mais léegi fii te nangoo taqoo moom léegi ngay jàng alxam noo ko bëggee kon jàng du wees kon noonu lañu ñu mbooleem ñi nga xam ne teew nañ fi ñëpp di ko jaaree ci kaddu ki nga xam ne mooy chef de village da ay numaa di di Abdul Manaaf Ibrahim Ousmane Alqadima Jaxate Kala muy maire de Thilmakha ak mboolem délégation bi yebal yëpp Alioune Aydara Sylla ak mbooleem délégation bi ko fi teewal yëpp maire de Niakhène préfet de Niakhène mboolem dëkk yi war ay numaat yi yëpp boo limee bàyyi benn waaye bàyyun benn mboolem dëkk bu nekk ci commune de Thilmakha mboolem dëkk bu nekk ci arrondissement de Niakhène mboolem dëkk bu nekk ci département de Tivaouane mboolem dëkk bu nekk ci région de Thiès mbooleem dëkk bu nekk biir Sénégal ñu ngi leen di jot li kontante ak mbégte ak cant ak gërëm ci làmmiñu chef de village Abdoul Manaf waaye di beral cant xaasa suñu mag suñu kilifa yabal doomam mu ñëw teew fi bokk ci ñi génn ki daara ji di Mouhamad Jaxate mais ibnu Sëriñ Aliou Jaxate moom Sëriñ Asan Jaxate taawu al taawu Sëriñ Mor Jaxate ñëw depuis bëkk démb ñu ngi nuyu sa papa bu baax a baax a baax di la ko jottaliloo suñu mbégte suñu kontaante suñu feerte ci moom ci xam-xamam ci yaatoom ci woyofam ci matam kilifa ci turu lañ ci turu daaray sëriñ Ousmane Jaxate rahmatullahi alayhi wa radiallahu anhu mu mu mu mu donne ko ci Cheikh Abdourahmane Jaxate mu jëlee ko ci sëriñ Mor Saasim Jaxate mu taata ne ko ci alxaadima Jaxate kala mu jëlee ko ci maam musa Daaro mi Al alxaadima jaxate kala fi ni ñew di fa wacc di fa tëjee ci ki ndigalu kilifa gi moy Serigne mustafa job di borom xam-xam di mbokk ndax bajjen fatim mor jaxate taw Serigne mor Saasum jaxate bu jigen mo jur way juram way waxuma côté bobu way juram Serigne Mor job, fa nit yalla tibbe fa la tibbe nit yalla pire ci jaamu yalla ci kurus ci alquran ci ruko ci deflu fa gor yalla ay ag fa la àgg mën naa teg kese Serigne Mor job way way toy Serigne Moustapha ñi ngi lay nuyu bu baax a baax baax dila ñaanal yalla yalla yalla accompagne sa dund gep faju aajo adina ak allah yalla defal lako di yëngu ci war wi war wi ci lay yëngu daga jek man mi di wax ak yeen sama ñaari tout tank ci mom la nek fa lañ mokal alquran ba nek ci talim ba muy kima ma sama papa abdourahman jaxata ak kima ma mohammed abdou aziz touré ma nga ci seigne mustapha me mo leen yor mokal alquran bu yag ña nga xam-xam ba macha allah kon mom fi kërëm la pakam la ci deret ci xam-xam ndax khadima jaxata kala dana dama am ñaari njabot doomu deret ak doomu xam-xam te ñaar ñooñu buñ dajee ci kër Xaadima Jaxate Kala doomu deret bu amul xam-xam doomu xam-xam gañe ko fa bu ñu ko tuddee tudd al oustaz di waajur ci ñun ñëwun pour leer ak bokk al oustaz Mouhamed maa ngi dégg nga di ko tatagal di ko làkk ay séeréer man xamoon na dégg na séeréer maa ngi dégg nga di ko tatagal di ko làkk ay séeréer oustaz xamoon dégg nga séeréer waaye waajur la ci ñun al oustaz Dame Ndongo macha allah di nuyu ay imam Soubeyru Jaxate ànd ak suñu mag waaye suñu jarbaat Mahamdul Habib jóge ba Kër Makala waaye ñi ngi remercier bu baax ci turu directeur bu daara Xaadima Jaxate Kala ak mbooleem équipe bi ànd ak moom waa Mourchid TV Mourchid TV Mourchid TV bu alxaadima Jaxate Kala ñun yéen lan yéen lan tippo yéen lan jàpp yéen lan téye te nag mursid tiwi ku ko tudd sa xel dem ci al mustarsidina wal mustarsidat kon mursid tiwi yalla ngeen raw ci télé sénégalais yépp waaye di beral nuyot suñu jarbat di Modou Jaxate ak nekk ci pekkees yoré fofu bo vitam ben radio yàlla na dem ba nek télévision yàlla na dem ba daj jamono fep Modou tabarakallah waaye di sante di gërëm bu baaxa baax ki turu équipe bu daara gi Mara seen bi yore wàllu programme bi te jàpp ndal ko lool te sawar ci lool te yaatu ci lool te am ci yéene lool yàlla nga ci am payu àddina ak payu àllaaxira yàlla nga defaru àddina defaru àllaaxira barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon fi ñu tënk mooy Serigne Moustapha Diop docteur bi mu wax dama ne Serigne Amsatu ma ne ko yaay wax kaddu sëriñ Amsatu waaye kaddu yi jëmaat ci sëriñ Amsatu jóge fii ci adara bi yaa ko yóbbuwaat kon sëriñ Seex sëriñ Amsatu Soxaybu jaalibatul maraaxi bi di borom alxuraan buy dox ca lay dox foo ko fekk ca la nekk ndax ki nga xam ne moo ko tudde bis bi daana wax ne bémpéemu ma xam ngeen bémpéem mooy ba jant bi soo doo dootoo gis mu ne man bémpéemu ma daana wax naan damaa naan kaasu café bu foor sàq mi gura teel a dem ca cinéma ba xam naa film biy daw kon bu tànnee sañu am sa ne ko yow la bisu alxaadima jaxate kala daara ji abadan amadan amul saase benn doom du am ñaari tur loolu kenn xamul lu muy nuru jur doom tey na sëriñ am satu mbakke bu bis bi dellisee nga tuddaat ko ne sëriñ Moustapha Diop bu bis bi dellisee nga tuddaat ko ne oustaz Damli bi waaw oustaz doom jooju nu mu tudd doom jooju num sëñ bi ne doom ji nu tudd ma ne ko ah man de xaw ma ko mu ne ma kon doom loolu ay tappale la bis bii sëriñ Amsatu Mbakke may dund sëriñ Amsatu Mbakke sëriñ am say nekk sëriñ Amsatu Mbakke ngeen di nekk sëriñ Amsatu Mbakke sëriñ Amsatu Mbakke téye koog fanweeri loxo téye koog loxo barki démb rek ci ramadan bii barki démb rek ci ramadan bii wàcce na fii ci biir daara ji loo xam ne lu baax ci dongoy daara la te at mu ne mu def ko weeru koor wu ne gàmma mawlid bu ne bisu daara ju ne fu mu tourné lu mu gis rek jàpp na ki daara gi la gën sëriñ am sa mépp yónnee ki daara ji macha allah su ko defee dana continué ba léegi sëriñ Haadi Touré di suñu kilifa di kenn ki sëriñ Ousmane waaye mbokk la benn la rek yebal doomam sëriñ Moustapha Touré mu ànd ak Alaaji Seck ak Ousmane Ndiaye di mbokk ñaari yoon ñoo bokk ca Ndëngur Ndiaye tabaarakallaahu sama maam Mudu Xaddi Ndiaye yebaloon na fi délégation sama maam Mudu Xaddi njaay moomu ak sëriñ Haadi Touré moomu ñoo bokk benn maam ndax maane jaxate la ak Fat jaxate Fat jaxate jur Cissé Touré mu jur sëñ Haadi maane jaxate jur sa maane Ndiaye mu Alaaji Mudu Ndiaye mu jur sëñ Mudu Xaddi Ndiaye maana jaxateeg fat jaxate nag moo du gënal jaxatee lañ jur moom soxna Mbàkke maaram kon ñi fi daje benn bopp la waaye ñu nuyuwaat suñu jarbaatu bopp di ko jagle spécial muy maam Thierno Mbacke di sët ci Serigne Baara Mbacke waaye di sët ci Serigne Mbacke soxna loo ndax suñu suñu doomu bàjjan mooy way juróom soxna Xadi Mbacke moom sama bajjan soxna jaxate moom maam bay jaxate maam Thierno Mohamed wax na ko moom pàkk bi miin na ko waye ah di beral nuyo suñu bay suñu xarit suñu feto suñu seddo bay cheikh xoseynu khadim jaxate kala bay cheikh jaxate mom mam xoseynu jaxate mom mam khadim jaxate kala di wajur ci président at sabab al hadratul makaliyat Seyd Ahmed Jaxate mooy waajuru Ahmed Jaxate mi nga xam الحضره sababul xadratul makaliya mooy nga xam ne samedi bii di ñëw la seen programme bi am ca Kër Makala ñu fay def seen siyaar bi ñu defal maam ma Jaxate Kala tabaarakallahu muy siyaare bu am solo bu am yitte bu am ak jotal ci ak bokk ak ci waxtaana lan mooy mag ñi ak lan mooy su mag ñi tabaarakallahu Pape ñu ngi lay nuyu baax a baax a baax la baax a baax a baax waaye di ñëwaat beneen yóbbante yónnent di ñooñu tudde seen bopp groupe sati alxaadima jaxate kala te Mouhamad Abdoul Aziz Touré mu sëriñ Abdoul Aziz Touré mu sëriñ Haadi Touré jiite ko yónnee neen fi délégation ka nekk ca bopp ba mooy maam Mamdul Habib mii moom Baye Ablaye Fass mam maam Fass moom maam Xaadima jaxate kala ak ñi mu àndal yónnee fi ambulo bu am solo ci turu jamhiya boobu participer ko ci bis bi kon mam mamdul habib nga jotilul nu mohammed abdul aziz ak groupe ba yeb donte ña nga ca ah dara ji bég nan contane nan ñi ngi leen di ñaanal yalla baax a baaxa a baax a ñewat di gërem bu baaxa a baax ci turu équipe bi yor dara gi moy laj ne be don saytu ndonga dara yi laj ne be don saytu ndonga dara yi oustaz saw ak oustaz gajaga ak euh, sang bi dramé tabarakallahu euh ñi leen di gërëm bu baax a baax yéen li ngeen féetewoo ñëpp mënu koo féetewoo loolu ngeen doon saytu man boo ma ko joxoon boo yeexee ki jël ki na ma jël dara moom laay jox pee waaw ku ngeen moo tax lenn la ne danga koy dénk boroomam te bu ko dénk sab xarit dénk ko xaritam moo tax xam naa Souleymane Diouf li tax mu tànn dénk leen ko yéen man ngeen saytu bu baax a baax ki dem ak ki demul yàlla yàlla bool leen fay taxaw leen barki alquranu karim ah tabarakallah li ni tek dal di tej ci kaddu khalifa bi rek moy directeur daara ji sulayman usman Abdurrahman Aynuman dafa def programme bu am solo avant bis bi ñew jang na ci daara ji fukki kamil ak juroom ben fukki kamil alquran ak juroom ben ci tout tank yo xam kenn amu ci bakkar kamil bu ne ñu xat ko lutax mu jang ko ne ñi ngi jëm ci ñaar fukki fan ak juroom benn ci wéru koor na ci borom xam-xam yi ne mooy ñaar fukki guddeeg juróom ñaar di guddik laylatul qadr. takk nañ ko ci ay takk yu bari ci ay ahadis ci alquran ci lu bare bare kon guddi gi ala dawme na bis bi bisu alquran ci guddik alquran ci wéru alquran ñu jàng ci fukki kamil alquran ak juróom benn ngir lan ngir képp ko fi teew yàlla foot say bakar foot sa jangoro képp ku fi teew yàlla remplir sa yaram sa deret ak leeru alxuraan leeru sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam defal la fan wu gudd defal la fajug aajo àddina ak àllaaxira ndax li wax ji bari bari bari fajug aajo ci la lépp nekk ci la lépp nekk kon li yéene ci wax ji li yéene ci wax ji mënoo ko wax ba mat loo wax wax rek boo paree am ko ne waron na ko tuddu te tudduma ko waye tuddu nan mbollem julit bu fi tew bu gor ak bu jigen di len wax ne sen mam al khadima jaxate kala nak litax litax litax muy mom serigne mor saatum jaxate mo waxon ne lawlahu lam yakku jullu nasu yahlamu ma huwa al huda wa huwa al haqq alladhi nazala kon serigne Mustafa ñang moko firi lawlaahu bu dul woon alxaadima jaxate kala ci jamonoom lam yakku du nekk mukk ci jamonoom jullu naas lu ëpp ci ñi jamonoon teeg moom yaxala mu di xam lan mooy ak njub lan mooy alxuraan lan mooy sunna lan mooy sirata mustaqima te duñu xam sax kan mooy rasulillahi mi nga xam ne moom la yàlla wàcce ci mu alxuraan andi ko daat ne ولم يكن خائلا بيتا بفكرته إلا وأفهم فيه كل من نبلا nee na mooy ki nga xam ne mësta wax ak nit ba noppi nga wàññi ko wan ko ginnaaw di am looy nemmat ak looy laajte ak looy looy leerluwaat bu la waxee rek day mel ni rasulullahi la jàngal alxaadima jaxate kala kon kooku du doon keemaan ñu ne la jox na xam-xam maam Seyxul Xadim jox na xam-xam maam Sidil Haaji Malik jox na xam-xam jox na xam-xam jox na xam-xam ba noppi tiitaroowu ko li tax su ko tiitaroon dana woote mbooloo woote ay propagande ñëpp yi di sukk waaye lillaahi wali rasulihi wali iqwati képp a ma def ko nee na alxaadima jaxate saahat maqalaatuhu fi lxukmi wal ulama wa xayrihim min jamihi mooy ki nga xam ne dafa amoon façon ci buy wax ci atte ci jàngale lu mu àttee amul laajte léppay leer naññ lu mu jàngale lépp leer naññ ak ci yeneen fan sax yoo xam ne fànni beneen matière la bu ca xaadima jaxate ka la ñëw wedem loo ca ñeke nekk ba ñëpp nangul ko ko kon looloo sabab alxaadi ma jaxate ka la allazi xalallaahi tawakkala allazi xalallaahi tawakkala cheikh sahdu abihi moo ko ko tuddee keroog bam ba mu tesee mu ne ko ba mu gisee moom ne ko هل إن بدر يد عند الدجا فينا أم إن سحد أبيه سام وافينا بمو نفعل سحد أبينا كي منك موي مصطفى يقول قال منك كي الذي حال الله توكلا كن تبارك الله مبك جولي يغورني يجيغيني تامبالي كو نيغي دك اي نومان سليمان ريبيتالا سيتي نا جيغينو اي نومان اك سين تاخواي اك سين جامبار وايي دو نيوم دي سيني بوروم كره كو سا بوروم كره نون بول ديم دو ديم wala nga gën dëkk bi te boo fi dëkku doo ca bokk kon seen i borom kër ñoo leen libéré ñu ñëw kon ña ngay tàmbal cant ak seen i borom kër teg ci soxna ya teg ca doom ya ñoom ñi jël seen i njaboot ak ñeneen ngi dëkk ci àll bi indil ko directeur Darou Souleymane ba jox ko martabam wa allama alquran ndax bi mu jàngee ba ñëw am na martabam xayrukum man taallama alquran waaye wa allamahu yéen ñi jël seen njaboot jox ko ko yéen a ko yóbbu ci marta wa allamahu kon yàlla yàlla boole fay ñëpp yàlla yàlla boole defal tawféex ñëpp yàlla yàlla boole nangul jaamu yàlla yëpp bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ah ku ñu fàtte lu ñu fàtte ngeen bàyyi xel ne ci fàtte doo nga ñu bind te ci la ñuy dund ci la ñuy màgget ci la ñuy faatu waaye yàlla bu ñu yàlla fàtte ëllëg ak mboolem jullit wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. lu ci jub te aw yoon ci sëriñ bi la sëriñ